Euh, kii di wuyoo ci turu Pape Omar Diop euh, ten gën koo xamee ci turu pot nag ak post ba nga xam moom la defoon euh, ci page Facebook Marodi Euh, di wax ci situation bi nga xam ne bii moom la Sénégal amee moom naka la nga xam ne bii moom la ca wax bokk na ca moom mooy euh, ko xam ne bii da ngay ba pare wëlbati ko jox am na tamit ki nga xam ne bii mooy président Macky Sall nee na ko yow daal da war a toog ba ci kanam nee na tamit ñi nga xam ne bii ñooy manifestant yi dañ doon fo daal ndax fa ndax jeex naam déet kii daal ba mu ko waxee ginnaaw bi nag ci la ko ñu ci bari commencé attaqué nag nak ko nag yow ni ko ko xamante ne bii ko bëgg sa réew ga gars yi daal côté benn bu ne jaare nañ ko ki nga xam ne bii mooy Pape Oumar Diop ndax nee ko nag yow Marodi bi ngay doog di commencé nekkutan dara ñi nga xam ñooy sénégalais ñoom ñoo la daal di jàppal tànk ba nga àgg fi nga àgg nga wëlbéeku daal di fuuy au lieu nga daal maandu ci mbir mi wala nga tamit boo jàppalewut kenn tamit nga daal di maandu mais mel daal nit daal li ñuy def dafa nekk loo xamante bi daal ay caaxaan la doon daal ki nga xam ne bii daal moom mooy Pape Oumar Diop Euh, ñii di patriotes yi sax la ñuy wax ñoom daal attaqué nañ ko bu baax baax ci wax ji xam ne bii moom lañ wax ndax ñoom nee nañ mbir ma daal daf leen a naqari Pape Oumar daal moom la nga xam ne bii moom la wax ci passé ba bari na lool lool lool ne bii daal euh, wax na ko ci situation bi nga xam ne bii moom la Sénégal di ay euh, dund mais daal nga xam ne bii moo ci gën a fees mooy attaque bi nga xam ne bii daal la wëlbiko noonu attaqué woon ndax nee nañ ko nag li nga wax daal moom tëgewul fenn ndax ki nga xam ne bii moom président Macky Sall bii moo nar a nekk troisième mandat te troisième mandat daal dafa wër am ci réewum Sénégal a ah, kon nag wuroo ñaax nit ki mu di ca dem bu fekkee naqarlu wa dee yi nga xam ne bii moo am ci réewum Sénégal tamit nga war a mën a noppi ndax situation bi nga xam moo am ci réewum Sénégal ba lu toll ci ay eh, nit ñu baree bari daal di ci ah, faatu nag mbir moom nag boo génnee da nga ko war a naqarlu mais naqarlu woo ko nag ba pare foog ne nit ñi dañuy fo moom daal gars yi dal nañ ci kawam bu baax a baax.